tey dafa nekk bis bu mag bis boo xam ni ñu bëri dañ ko ragaloon am nu ñu ne war sax Ousmane Sonko kenn du ko atte moom ci boppam gis ngeen def na lu ne pour kenn du ko atte ordonnance de renvoi bi bi mu ñëwee ñuy def appel di def pour waat ordonnance de renvoi amul appel pour yéexal jël biñ ko ooyee muy daw ah du jël convocation bi ba yóbbu ko mairie ba fekk Casamance jox ko Ziguinchor convocation bi waaw lu daw moom bu gëmee nit ñi ne moom yëgul procès bi ma ñëwul xam nga deewlu ko ne ay avocat ko lu ñu fi def bu ñu lay oowul tribunal sa avocat ni ko yëgee ba ñëw tribunal ma ne gars ku yëgul ne dañ lay atte kenn oowul la tribunal lu tax nga ab juróomi avocat ñëpp taxaw naan dañuy ñaan ñu dàq ko. kon boog dañu lay wone tey li ñëpp foog du am ah. mooy ñaf ci bi Ousmane Sonko am na mooy ñaari at yoo xam ne

ñu jox ñu li ñu laaj yëpp mooy wane ni ñu yeggee ci ñun lu tax ñu war a tëj Ousmane Sonko fukki at wala ñaar fukki at ndax yoon loolu la wax waaye nag dañ ko indi ci corruption de la jeunesse mooy yegg ci xale boo xam ne ci xale waayam ci ñàkk doolem nga abise ba mën a tëdd ak moom kon loolu kon la Adji Sarr waxoon en partie nangul nañ ko ko loolu indi ñaari at yi nga xam ne Ousmane Sonko war na ko tëdd ci kaso bi waaye yoon nee na ginnaaw mu tëj ko ñaari at ñu war to tëdd fii ci kaso bii jege bii ku ñëwoon buñ ko tëjee dëkk bi tàkk yoon am fit tëj ko mu war a fay six cent mille francs amende ëlbatiku yëkkati ñaar fukki million moom Ndeye Khady Ndiaye ñu jox ko ndàmpaay solidairement à à Adji Raby